nii. Ibrahima noonu mais Fodou Lo Fodou Lo Fodou Lo ñu ngi nii dans quelques si kër gi ak say jàmbaar xaaral ma si Petit ba pare. naka ngeen waajee bés ak fan ngeen toll. mais comme ni ñu doon waajee combat yëpp. ñu ndaw incha allah. te tey mbër nga wala supporter man xamee ma la ba tey. mbër supporter ci mu gaay accompagnant Siteu nee na dana leen teg leen fii. fan si laa tey fan si fan. Siteu Siteu dafa ne dafa leen ne teg leen fii bu ngeen bañee xoolal. mu dagg seen bopp loxo la doon wax bopp lay dagg. dagg dagg dara. day ko doon ñëwaat rek li mu doon gis doon as seen dina am. jeex xeex xeex dina am. am lépp jëla saa lépp dina am. waaye fu nekk nii dafa mel yaa ngi ñam ñam rek confiance moo ma jaaxal la la. lépp dina am dóor mu daanu lépp. nga ne dóor lan. dóor lan. waaw dóor lan. waaw jëli kii tey nga ne. waaw comme noonu rek ah. comme combat yi passé rek confiance bi ngeen àndal moment bi lan la lan la. waaw mais dara comme noonu rek. ah, ah lan mooy comme noonu lan mooy comme noonu. li ñu waroon lépp def nañ ko. xanaa dem jëli ko moo si des. mais su ko nee na danaa leen teg leen fii su ngeen bañee mu dagg seen loxo. day sànju rek loolu la am wax ji la am si combat wax ji. wax ji rek la si am wax ji quoi. xeex dina am. xeex bëri lépp dina am dër mu daanu lépp dina am. ardo lépp ardo kay dina am liggéey tey incha allah. yàlla ko Modou yóbbu ko ardo ñëw mu dugg ko daan. fan su Modou yi loo leen wax. non ñu dalal seen xel rek xam ne mbër bi li mu mënoon def lépp def na ko. li des mooy ñu dem jëriñoo incha allah ba muy passé rek loolu rek la ñuy wax. lamb ji am nga yaakaar mu yàgg. bu yàggee baax na bu gaawee baax na bu demee deuxième mi-temps baax na premier mi-temps baax na. lu mu mel baax na. mbooloo mi daal du isil rek. mbooloo mi si buntu kër gi lii lan la. waaw lii xam nga rek cofeel bu ñu am si mbër mi la. waaw yàlla bu yàlla seen yaakaar quoi. Hmm. roi bi day ñëwaat tey. incha allah bi ñu gisee mu ngi fii sax yeneen saa yi daa léegi nii. daa léegi nii daa léegi nga ne roi bi lan loo su roi bi day ñëw. incha allah. dama koy duma dama koy daal bu soobee yàlla. da ngay duma. dama koy daal bu soobee yàlla. Hmm. leer naa la. yéen a wax loolu si léegi si kanam tuuti di nga gis li mu doon soo yàlla. ah.

sa sa seen image bi sa seen image bi dafa rafet tey lan yaa ngi nii di dem stade lan kàddu ngay mujjee wax ngir yàlla rek may ma ko eh, eh, dem jëli ko rek non lan ngay mujjee wax balaa ngaa génn ko fii noonu kontante nañ o sa sa tuma sa tuma mais tal tal lan nga dénk mbër mi antal dañu tax ni waay man may man may photo sëriñ Cissé bu sëñ Babacar sëriñ Cissé bu sëñ Babacar sey sëñ Cissé xool ko seen jàmm jeex na dan fa nag jéemal mbëru parcelle yëpp ñëw nañ tey seet si Modou balaa moo génn fii la départ ndax yaa ngi noonu yéen sëy ji law